man maa ngi tudd Abdou Khadir Sen, nekk le coordinateur national des volontaires communautaires des classes préparatoires à l'élémentaire fii ci Sénégal euh, li ñu indi fii nag tey moom mooy euh, dañu nekk ci système boo xamante ni système éducatif la mais système boo xamante ni système bi ni muy doxee moo ñu arrangé wul euh, te baaxul si ñun. système bi nag li ko indi moom mooy projet bi nga xamante ni moom moo nekk le projet PIPADH nekk fii depuis 2021 moom moo ñu woo en collaboration avec l'État du Sénégal et la Banque mondiale woo ñu nañu les écoles publiques dañu soxla li nga xamanteni mom mo nek ay classes ci biir école classe maternelle mën nañ ko wax classe maternelle mais également classe préscolaire ci biir école yooyu euh nan la jëlé dañu wo ci ay critères yo xamanteni ay critères yu lèr nañ la

nan lay servir l'enfant mom moy daf koy jël ci ay outils ci ay programme def ko si li nga xamanteni mom moy xalé yi programme bi également daf ci bokk tay ñun ñi nga xamanteni ñom ñoy ñun ñoy jàngale ci classe yoy nonu mu am patch bo xamanteni daf ñu koo jagleel waaye ci bir lolu dafa amone collaboration bo xamanteni dañ ko am avec les autorités municipales ci bir lolu ñom les maires dañu jëloon engagement à ce que né ñom buñu ñëwé ñëwee danañu jël li nga xamanteni mo nekk la responsabilité di rémunérer ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo nekk volontaire communautaire yooyu ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo nekk ci bir salle yi mais depuis boba gis nañ que ne manquement daf ci am manquement notoire bo xam daf ci am manquement bobu nak daf ci bokk moy tay ji ni depuis euh, le mois de mars 2023 jotuñu benn salaire bo xamanteni venant du projet Et xam ngeen depuis le projet bi bu fayul xam wax nañ ko les maires certains maires la wax que ne ñoom fay ñu ñi nga ni ñoom ñoo on peut pas imaginer que par exemple jàngalekat bi nekk si biir école bi di les mêmes quantum horaires ak ñi nga les agents de l'état am satisfaction ben, fukki deureum bo xamantene mën nako koo donc loolu la japp né loolu discrimination notoire la mais également xeebaange weesuwul loolu. ci bir loolu projet bi également dafa waxone ne danañu jox chaque trimestre ben somme bo xamantene ni euh, dafa don tourner si euh, soixante quinze francs mu dem ba ci biir en janvier 2023 mu ne yokku na loolu jël def ko cinquante mais depuis booba bi mu ko waxee en janvier 2023 ba léegi amul benn yoon bo benn yoon la ci dugal xaalis te depuis booba yoreen na kon jàngalekat yi nekk fii nii neuf mois sur ce dañuy wax à ce que le projet Pipareas il faut que nous respecter engagement que envers les volontaires communautaires buñ nous avons dafa am également engagement nous avons envers les autorités ñun matal que ko ndax pour l'enfant loolu war a

mu doon décret bo xamanteni ni fay interdire li nga xamanteni ni mo nek ñun les volontaires communautaires ñu def suñu examen professionnel déjà ñun am nañ ñoo xamante ni nañu ci examen yoy nonu def nañu suñu épreuve écrite ba jallon nañu ko si si biir loolu ci lañ ñu wo nañu mënatuñoo def li nga xamanteni ni mo nek pratique té lolu ñu ñaawlu diko nakarlu bu baax a baax baax di woo l'état du Sénégal à ce que mu dellu ci waat ci décret bobu nonu ndax kat su ma waxee dala war dellu siwaat ñun xam nañ carrément que lan moo nekk suñu base lan moo nekk suñu valeur boo xoolee fii ñi fi nekk wax naa ko démb si émission rajo bi ñu bokkoon mooy que ne ay talent ñoo fi nekk ay intellectuel ñoo fi nekk ay intellectuel ay boromi xam-xam ñoo fi nekk également bu loolu weesoo boo xoolee ñi fi nekk nii amul benn mag fii amul fii ay jeunes kese fi nekk ñii université lañ jógee ñii seen liggéey lañ jógee ñii dans les écoles pub privées la ñu kon ce qui veut dire que l'État du Sénégal savait bel et bien que ne examen bobu nonou ñun ñu def ko xam na ne carrément danañu jall té il a l'obligation comme intégrer ñu dans la fonction publique. si le bir lolu waxna ko légui am nañu des gens yo xamante déjà am nañu diplôme professionnel bi dañu lancer à l'état que ñooñu nonou buñu ñu nañu leen jël boole leen ci programme état bi ñu def leen directement fonction publique ci nous, ñun ñi nga xamanteni également amaguñu diplôme professionnel bobu nonu dañoo bëgg état bi également défal ñu formation diplômante mais également ñu duggu ci li nga xamanteni mo moo nekk le système éducatif donc lolu lay lancé

wawuñu wax ñu loo xamante mën na dal suñu xel donc euh, fofu la yemalé samay kaddu di wol l'état du Sénégal à ce que mu gestu bu ñuy defal également li nga xamanteni nii lu ñuy defar la ci bir Sénégal nañ ñu ci jàppale bu ñuy woo également ci recrutement des enseignants déjà am na système boo xamante ni moo ngi fii am nañu les diplômes requis am nañu également euh, carence bi mais également am nañu xam-xam bi ak amur bi bon donc yaakaar naa dara desatu fi loo xamante war na mën a fii au niveau national au niveau national boo ko xoolee tey ñun ñoo ngi toll Nous avons le baromètre. Nous avons actuellement 2250 enseignants répartis en 7 régions. Donc, si nous avons actuellement, mais également, si vous avez 2250 enseignants, faites le calcul, vous multipliez par 65, vous avez plus de 1000. 1000 et quelques, 100 000 et quelques élèves qui ont été chaque année, nous sommes directement CI. Donc, l'OREC, l'OREC avancement notoire.